ay ziar ziaraat mbokk internet yi lu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo eh, di leen wax ne tey soo leen ñëw ba fii ci eh, Géejawaay ñoo ngi Gunaas ñoo ngi Baxdaat ci seen émission eh, lamb rek lamb rek bëre kese ñu ñëw seet si kan ñu ngi ñëw seet si Fuuta waaw Ahmed Fouta numéro 2 moom lañ ñëw seet si tey fas yéene séq ak moom waxtaan mais sama gars yi ama gauche ala numéro de moo fi toog ama droite na leen mbay di fossé numéro de mi ngi noonu ceene Fouta numéro 1 mi ngi ñëw léegi ah ñu war a waxtaane làmb ah parce que kii ma toogal nee ñu bàyyi na bëre nee nañu bàyyi na bëre man wóoraguma ah, ah est-ce que le de Fouta du am sama gaa yi ci biir làmb ji mais daal ce qui mooy que ne instant bi may wax j bàyyi na ah, bëreetul mais mu ngi ci làmb parce que mi ngi entre mi ngi encadré ay rakam mi ngi teewal goxam fii di Gunaas Baxdaat mi ngi koy teewal dignement mais géejawaay sax mën naa ne d'une manière générale euh, Fouta dafa nekk mbër moo xam ne waa joo xam ne moom lu xew géejawaay dafay bëgg a génn défendre les couleurs de géejawaay fi mu dëkk moom dafay bëgg di ko défendre toujours bëggul dégg ñuy wax lu ñaaw ci ay mbër yoo xam ne géejawaay lañ dëkk tey nag loolu bokk na ci ñu déplacé wu actualité obligeant mbëru géejawaay am nañu bëre am nañu bëre weekend bi passé weekend bële am nañu bëre am nañu def différence mais combat bi gën actuel actuellement moom combat Papa Boy Djiné face à Nandi Fall ñu ko dimanche euh, samedi autant pour moi samedi 8 juillet 2023 ñu bëree ko à l'arène nationale journée Sambay la woon Sambay à la euh, Sambay Fall à la tête de la structure sans production organisée. organisé woon ñu bëree Nandi Fall daan Papa Boy Djiné jël bu leer am na ñu ne jël bu yomb ay coow jóg ci wax ju bari commentaire yi jóge fu ci biir làmb ja yenn reporter ne Papa Boy Djiné dafa war a bàyyi bëre ñenn ñi ne amul doole ñenn ñi ne mënul bëre bañ génnee ca làmb ja commentaire yi encore nga dégg lu ne booy bi star la booy bi nii nee nee nee na loolu lépp dañ ko war a waxtaane sama gars yi fii ci géejawaay tey seen émission lamb rek bëre kese fuuta ñu gën ko xam ci amet bu géejawaay mooy sama invité rakk ji maa lay ziar dool ziar ci loo ne sant yàlla bu am jàmm sama gars yi ngeen jàkkaarlool mooy fuuta numéro 2 avant tout lan ngay nuyoo dèjà ñi lay seetaan waa maa ngi nuyu ñëpp waaw ku si nekk sa tur ak sa sant ak gars may nekkal tey jii mën naa si axlu bi ndax ñun ñu fi toog nii tey jii ki fi fekk ak ki fi fekk ñu ñëpp benn lan waaw dañuy xàccandoo di dóorandoo maa ngi nuyu ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn waaw loolu nuyoo bi waaw euh, dernière fois bi ma fi ñëwee émission avant combat laa fi ñëwoon bi yoon dama ñëw émission après combat parce que la dernière fois bi ma fi ñëwee Mbaye Tine ni euh, senior Bouba moom moo doon waajal combat face à Xeeru Ngor numéro de gars yi ne tey mu dee boo ko Xeeru Ngor jàppee Xeeru Ngor moo ko ëpp relance moo ko gën a soxor moo ko dàq xeex ma ñëwee ñu toog sa nga tojal ma émission bi nga tojal ma combat bi avant jour si avant làmb ja nga ne ma làmb ja nii lay demee te buubaa bés bu bëree nii est-ce que buubaa maanaam maa ngi naan buubaa maa ngi jégalu nga ne ma Mbaye Tine Junior lii bu ko bëree dana daan xeeru ngor jouru làmb ji ba Mbaye Tine daanee xeeru ngor sama xel dafa dem ci yow waxuma la dara lendemain bi nga dagg vidéo bi envoyé ma ko li nga ma waxoon ak ni mu fa demee kif kif manam da nga bëre lamb ji avant jour ji mais nak loolu avant combat la won mais bi après combat bi dama ñëw après combat puisque sen mbeur mi du ma sen champion du champion du champion. Hmm. du am bu ma bu ma la xujju loo may xol bu ma la xujju du champion. dédé du champion du champion sen benn boy bu dëkk fi sen star la nak mo bëre samedi bi passé daanu wax ji bari nga ne man ak yow wax ji li ngay dégg ak yow li nga dund. ak mbër mi c' est diamétralement opposé puisque sa wàllu bopp du yow Amet da nga bëri ak Papa Boy Djiné mbapat n' est ce pas bëri ngeen mbapat parce que mbapat affaire de koñ la woon yow fii ngay dëkk kii ñaari kat ñaari ñaari koñ moo dox seen diggante nga toj fii mu toj fee ñu boole leen yaa may dégg mbapat des fois tëli bi sax moo leen di séparé maanaam mbay di foncé day toj fii buubaa toj fee ñu ne nañ leen boole des fois bu ñu demee tournoi ñoom Euh, lamb géejawaay lamb géejawaay jën manière générale ban jàngat nga ci def. lamb géejawaay mbër yi di leen wax tey jii lan booloo rek. gën a booloo comme ni ko yeneen gox di defee gënuñu leen. tey jii yaakaar naa ne carrément buñ boolee di xàccandoo di dóorandoo non kenn du leen amul leen lu leen nit di ëppalee si làmb loolu kese man laa leen di sa sa saa su ne. nan di booloo jos euh, mbay di fas numéro 2 mu ngi nii heure bu toogee ba yaakaar naa béykat yi dem moo si mujj lu mel noonu laa mujj waxtaan ak moom fii. bërki démb presque ba min une heure ñu ngi toog fi lu mel noonu la doon waxtaan moo ko alaatee may leen carrément lu ma leen di ñaan mooy yéen ñi fi mbër di ko dund booloo leen doon benn bu kenn dox seen diggante boo bis moo leen ko defee li ngeen bëgg di ngeen ko am si kàttanu yàlla ndax jaar naa sax xam naa xam xam naa li làmb laaj waaw xam naa jaar nga ci te làmb xam nga li mu laaj waaw léegi bu ñu nekkee ci benn koñ bi euh, may di foncé numéro 2 di ñor di di ñor di di ñor di mbëccin si ñor affaire de star de gënoo ma de ëppoo ma doole daa xaw bëre genre yooyu noonu est-ce que est-ce que est seen avantage la parce que booy seet benn koñ moo dox seen diggante comme nu nga ko expliqué nii est-ce que gënul mbaytin buy bëre mbay di foncé ñëw jàpp ci mbay di foncé buy bëre mbaytin ñëw teew gis nga gis nga bu ñu boolowee doon benn seeni supporters dañuy soppante mais bu dee mbaytin daa téye boppam du ñoo di star mbay di foncé numéro 2 du ñoo di star la ñuy def léegi nag xam nga la mooy inconvénient bi mbay di foncé mooy ñëw di bëre ji génnee ñetti kaar mbay mbaytin ñëw di bëri ji génnee ñeenti kaar fekk bu ñu booloo woon bu ñu booloo woon ñetti kaaru mbay di foncé ak ñeenti kaaru euh, mbaytin yëpp dañuy génn mhm. bu mbay di foncé di génn sept cartes lay génne huit cartes neuf cartes dix cartes avantage am la parce que supporter ak supporter mbay euh, euh, mbaytin ñoo ñoo booloo bu mbay bu mbaytin di bëre ji génne neuf cartes huit cartes dix cartes onze cartes douze cartes pour lan parce que ay soppe mbay di foncé ak ay soppe ñoo booloo doon benn mhm. nest pas mhm. yow foofu ngay waxee maanaam bu kenn ñoo di star ndax loolu lu leen koy may mooy tey jii mun naa ne bu nekkee mbayteen ak mbayteen xam naa ko kooku danoo defandoo génération man ak moom sixième. Mhm. sixième lan bokk di jàng école. sixième daggati kay. sixième daggati kay la si laa beer may ma dërëm. lan bokk di jàng école man ak moom école Moussa Balde Ibrahima Dia. yàgg na ñuy bokk di jàng école ba sem 2 yàgg na kon yaakaar naa ne carrément kooku du gan si man. Mbaye Divorce numéro 2 tamit noonu. sol na yére simi jox ma ko man sol naa yére simi jox ko ko. kon yaakaar naa ñun benn la Zos 90 la tuddoon daa war Zos daa changé tur bi def ko Mbaye Divorce ay nee naa la ay warkat lañu booy mbëri. non du warkat Zos 90 la tuddoon. du warkat sax ndax tey jii maanaam ku si nekk ki nga dëkkal moom ngay tiitaroo. waaw te Mbaye Divorce dafa nekk nit ku baax nit ku xam ne alalam di ko booleeg doomu aadama di yëkkati alalam la jënd dara tey tey tey nga gën ko xaa soxla suba mu récupéré ko ñëw jox la ko dégg naa man xam naa si dara dégg naa loolu doomu ndey Pamoudou waaw doomu ndey Pamoudou doomu ndey Njaga doomu ndey Fouta doomu ndey Tafa Thiam waaw doomu ndey Jimbone noonu la fa demee waaw mais gars yi tamit si benn côté ma di leen ko wax ñoom mbëri mm. tey ji àdduna du neex mukk ba tey ji Mbaye Diouf numéro 2 ñëw ne Mbaye comme li nga wax sànq comme kis kii am na lu may ñoddi wala Mbaye Tine ñëw ne Zoss daa am lu may ñoddi tey ji lenn moo leen si mën a dimbali muy Georges tey jii ñu muy toogal na fexe ba tey jii moom bu may agsi nit koo xam ne carrément day ñëw di ko andil surtout mbay di euh, Mbaye Tine Junior Mbaye Tine Junior na fexe def la tout ba moom képp ku mu munti toogal kooku bu mu bëgg lu ko neex ba tey ji mu koy andil képp ku ñëw di la andil di nga lenn mooy mooy andil dana yóbbu lenn moo ko mën a faj mm-hmm. nit da lay andil tey nga taxaw na ko yaa wax mm-hmm. li nga wax dëgg la taxal ma woo diw mu leer mm-hmm. après day jeex képp kuy mbët géejawaay ndax yaakaar naa boo doon dundee noonu amut ay réeroo dara du si am mais nag waaye dafa commencé bëri star nag commencé bëri star de yow yaay star bi waa jëlal yow ay star bi star bu sant ka ka Está gustan dukka. Wa wa wa wacho wacho wacho bul. Manjul sacho wacho bul. Mais rek yi Mbaye Tine Junior liggéey naan doo xool moom xoolul de daa signé daa jël rek te xoolul xam nga kan la jël benn mbër bu ñu naan Tony Junior am doole mën a bëre gëm boppam mësul daanu géejawaay moom géejawaay moom nii la leen di def nii nii nii xam nga kan la fi mujjee daan bébé guy gi njaago bi mësul daanu Laurent mësul daanu. ba mu ba mu jëlee Tony Senior Tony daa këpp yalwaanam jàpp rek këlëb teguwaat ci yoonam Mbaye Tine Senior xaw ma daa gëlëm xaw ma nu mu demee noonu li gars yi naan doo xool moom daa jékki-jékki rek jël ndeysaan Tony Senior lay bëreel. boo yëmbal ak Mbaye Tine Senior lu gars yi waxoon boo yëmbal ak Mbaye Tine Senior ah néew nañ boo yëmbal daanaan la de ñu jëlee foofu ñëw si xeeru ngoor lu gars yi wax xeeru ngoor ñu ne ñu ne bu jàppee Mbaye Tine Senior dana ko dóor ba mu ba mu wàcc toog man ak yow may la séeri naa Mbaye xaw ma kan mais bu dégloo lu ma koy wax te moom taxaw na ma waxaat ko ko muy leer te avant ñuy def interview bi taxaw naa wax ko ko may la séer naa Mbaye Tine Junior lu ko mën a dimbali si combat mooy bu abine pip na ko cokkaat si xeex dox deux pas taxaw xaar ko day màmm ñëw mu daw jàpp bu ak moom nii laa la ko waxee yoon te làmb noonu la demee Mbaye Tine man maa la ko wax fii Mbayti Junior ak Tony. Tony Junior xaw ma combat bi demee xaw ma combat bi demee Mbayti Junior yalla ko yalla may ndam mais bu abiné pip hmm. bu abiné pip hmm. man Mbayti Junior suma ma koy conseil xam nga laa koy conseil mooy bu abiné pip bu taxaw déglu bu taxaw di xaar Tony bu mu taxaw diko xaar bu taxaw diko xaar bu ko may sax ay ay seconde yo xam day taxaw abiné pip nga taxaw diko ko di man abi bu ne pip man tey jii su fekkoon ni man la man wala Mbayti Junior di déglu man limako wax bu abi ne pip na dox na dox si kaw sawaay mu dox ci kaw bu abi ne pip fu abi mu wàccee ci kaw tool yi dox ci kaw tool waaw. baax na bul taxaw xaar ko muy muy xalaat wala muy bëri sa kaw. ñaari bërekat la. moo tax attaquant la. kon day attaqué Mbaye day attaqué te Mbaye du défenseur attaquant la. ku si nekk daa am foo mënee. Mbaye moo gën a dof ñëpp nekkul bu arbitre ne par dox na sa kaw. musul xaar Mbaye junior. moom laa yi mu am ndam yëpp dafa attaqué yi mu ñàkk yëpp dafa attaqué kooku daa xam luy xaar. ku si nekk daa am ko foo gën a mënee Mbaye Tine la waaw kay moo dàq xeex Tony. déedéet maa ngi wax déedéet da nga far rek Tony xeexam Tony xeexu xeexu mbedd lay xeex. booy géej waay nga faral yow booy géej waay nga yow jàpp nga ne mbëri géej waaye ñu mën ci làmb ji. non man bu lamb taxawé muy muy sama mbeur muy mbeuru keneen damay analyser ni lamb démé ndax bëgguma ëlëk ci ngay analyser wa kay bëgguma ëlëk may wax lo xamné karma tay ji xawma xawma ni ko lamb yi ni la démé li nga xamné man mo mo da sama xel dina né lamb yi ni ak ni la démé mais amna plein droit faral ki ma wara faral waaw waaw waaw faral sa koñ faral sa gox ah, man ku ñu gëjjo ay ñoruma ndeysan gëjjo ay da nga ma ñor apat apat gëjjo ay passal la am si ko xamné karma tay ji koku lamb duma musa bolé mom du ma mës ak moom muy Farba Diagne bu dul Farba Diagne di Ronaldo moo jaxate amuma beneen xaritu mbër ñooñu dañoo dund loo xam ne du làmb li may dund ak Mbaye Difoto li may dund ak muy Farba Diagne muy Ronaldo loolu laay dund ak ñoom ñooñu maa ñoom du làmb waaw loolu du làmb noonu la fa demee mais daal Mbaye Tine Junior jàpp nga ne am na avantage ci kaw Tony Junior Mbaye Tine Junior laa wax Mbaye Tine bu abi ne pip man su ma lu ma koy wax mooy bu mu taxaw xaat Tony abi bu ne pip na dox si kaw sawaay Eh, eh, nga dox ci kawam. at bi bu ne bii fu at bi na dox ci kawam songu attaqué bëreeg moom. bu mu ko may. temps de réflexion xalaatee at bi bu ne bii na dox ci kawam bëreeg moom man maa la wax lii. naa fi ñëwaat après de. xam nga wax mu toogaat de. lamb lamb jàlloon na. ñu waxtaan si. xaw ma ñu lamb ji di demee nag. waaw mbéytu Joal yàlla na ko yàlla may ndam mais bu abinee pipe man li ma koy conseil mooy fu abi si wàccee sifflet bu mu taxaw xaar tuuni na dox si kawam. d' accord fii nii fii fii fii ñoo ngi ñoo ngi baaxaat. ñoo ngi baaxaat nii ba jëm ba jëm nan ba jëm ñetti mbaat. boo jëlee nii yaa ngi jëm gunaat. les espoirs ah les espoirs les espoirs mën nañ fi lim euh, Elton Senior ah. mi ngi fi tout près Brise mi ngi fi tout près Mady mhm. Fossé numéro 2 mi ngi toog ala numéro 2 mi ngi toog euh, Kabila mi ngi fi tout près Pape Sakho mi ngi fi Faga 2 mi ngi nii jàkkaarloog ñun daale mi ngi nii yaa ngi may dégg euh, boo wàccee na le boo wàccee na nga avancé ala numéro 2 boo wàccee na nga jël ñoom Assane Thiass ah. avancé waat tuuti jël Papa Boy Djiné mhm. ñaa bu ndaw mi ngi ci kaw na le waa waaw noonu la fa demee léegi nag euh, wa Ilimane mooy kat Sores numéro 2 Sores numéro 2 mi ngi fi tout près Thié numéro 2 Thié bu Pout Diack wa Baye Ma Ndiaye Baye Ma Ndiaye mi ngi fi tout près kon fii fii dafa bëri ay ndaanaan waxante non xoolal ndeysaan kontaan na nag mi ngi ree moom boo waxee ci géej waaj lu rafet rek day kontaan quoi. Douglas ah. ren ren dafa gum na 3 combats 3 victoire dafay ah boobu noonu booy boobu noonu xoolal ay mbot lay tëgg booy yi ren la xoolal da lay daan ba ba romb la Douglas numéro 2. mais moo ne boo école di moo ne yëpp nañ ko top 5. waaw. moom la Siteu bu anti takkoon ba ci kaw rek rek. moom moom kilifite ko ca ginnaaw. na ko top 5 mu dégg lu ne. yéebu na ko top 5 mu dégg lu ne. kon tey jii mun naa ne Papa Boy Djiné bu xoolee si loolu. bu mu set découragé wu loolu laa koy wax. mais bokkul kaay bokkul doublage benn defet la am signé 3 victoires Papa Boy Djiné 7 7 défaite la am 3 victoires. waaw euh, 3 victoires la am 7 défaite. kii am benn waaw maa ko wax. Eumeu Sène avant muy bëreeg Balla Gaye ñaata la teg la. mooy yëmbal boobu defet la tëgle mooy yëmbal ñaata defet la tëgle mooy yëmbal tegale ne fi six defet Alliance Baldé ñaata defet la tëgle non non non du six defet cinq defet benn victoire au point mais taxaw na fi six combats yoo xam ne daanu mbër Alliance Baldé ñaata defet la tëgle Ama Malika ñaata defet la tëgle eh Ama Malika deux defet kese la tëgle deux defet kese la tëgle Gris Bordeaux waaw waaw booy may leen suñu jàmm waaye man Papa Boy Djiné laa wax booy li ma la mën a wax mooy di nga yow papa bis bu champion bu nekkee cuune rek li ma li ko wax li ma li ma la mën a wax mooy papa bis bu xel bi dalee papa bis bu waa ci suuf ci suuf a suuf papa merci ci suuf di nga mbër mu jël defet dafa garaaw waa mais man sax man papa boo jinne kan mooy kooku kuy kooku man dama koy dégg rek xaw ma ko de daanaan kuy kooku doomu géejawaay nu mu nekkee daanaan fu mu fu mu toj papa dafa toj fan la toj papa toj na fan la toj fan la toj fu mu toj bëri na mbapat fu mbapatee man géejawaay fii ku mbapat xam na man géejawaay fii ba ba léegi maa ngi fi mbapat yoo mbapat dem papa booy si na papa ndaanaan la ndaanaan la ba billaah wala papa ndaanaan la ku ko xamul nag xamoo ko yaay toog di wax si ginnaaw fan fan nga teg ni ndaanaan la papa dañoo def papa dañoo defandoo génération mm. dund da ngeen mbapatandoo papa lamb tolloon na foo xam ne carrément bis boo ko gisee wala nga jël ko interview laaj ko ko tolloon na foo xam ne géejawaay géejawaay bëri woon na ay champion mais lamb tolloon na foo xam ne carrément man ak papa la ak la géejawaay yëpp bëggoon ma roñ ay booyam muy Ablaye Naar Loo Karim Loo Karim daan nga ko Loo Karim daan naa ko lamb tukulóor làmb moo wax dëgg ma dem suivre métier bi ba amatuma temps bi bàyyi làmb ah. mais géejawaay bi géejawaay daj amul benn mbër buy taxaw ne carrément Fouta daan naa ko toog si kawam papa boo jëndee lamb bu ne lamb tukuloo mu wër ma ndomba ba mu génn saako yi gars yi tas làmb ji coow am muy lamb coow moom mu moom mu roñ koñam man ma roñ euh, diggante Baxdaad Gulaas sans verdict ndax verdict ndax lamb jàppee coow moo fa mujj am daa mujj yàqu gars yi grand combat mujjul bëri suma juumul sax kon Papa Boy Djiné toj na mbapat ko Papa Boy Djiné ndaanaan la ndaanaanu bërekat la ndaanaanu bërekat la xëy na keroog action boobu mu tàdd ñu bëri jàpp na ni papa cuune la si action boobu noonu mais papa du cuune papa loolu da kaa mënee. non mbapat xëy na xëy na ñoo ci mbapat nañ ñoo gëm ci mbapat maa ngi ñëw foofu maa ngi tooñ naan la kuy kooku xaw ma ko man maa ko xam man Papa Boy Djiné ma ko xam. ba muy mbapat fii 2008 2009 2010 njool ni sew sew sew la def rucc la def njool ca kaw ndeysaan buy njuug noonu mel ni waaw yaa mu gën a xam man maa fekkee su ma ko photowee ma fat su ma andee photo yi du am lu mu ko fayee commando moom yow ba ma ñëw mhm. commando Babacar commando boobu tamit commando mi ngi bëre en même temps papa mi ngi bëre commando mooy ba muy daan fii rawul euh, grand combat stade Ndiarème du li muy génnee ci mbooloo yàlla rek a xam mhm. papa ñëw nekk xale bu ndaw nekk poulain wam mhm. papa buy bëre commando day taxaw yaa ngi may dégg papa daan mobiliser lu bari daan bëri bëri bu yéeme ne naa gars yi jinne bi fan la jóge lan moo tax ñu ne booy jinne hmm? mën a bëre moo tax ñu ne kii du ne jinne la booy jinne la papa booy la su ma indee photo yi ndeysaan su ma indee dix photo papa amul lu mu fayee photo yi commando moo may woo hmm. grand photo yi ñaata ma ne ko yaay fat yaay fay huit photo yi maa la may deux photo yi mu hmm, kii comme ça mocc mocc mocc yëkkati deux mille cinq cent jox ma ne ma xoolal boo jaaratee ma jox la taw five dàqante ko di ko dàqante booba booba booba demeewul noonu yaa may dégg ñëw ma fi nag pour neexal Papa Boy Djiné ñëw ma fi dañ pour yàq kenn man sama liggéey laay def démb magam laa seeti woon abu Sey moom laa seeti woon démb man tamit dama xam li ci bayre siiw dama cee xam dara siiw du jàmmi boroom boo siiwee boo amee ndam day siiw boo daanoo day siiw boo siiwee bari ci ñoo xam ne say jëf ju baax duñ ko gis li nga tëlee rek moom la ñuy siiwal démb magam laa dem seeti kooku yaayu Papa boo Djiné ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay uh-huh. moom laa seeti woon démb Abou Seye uh-huh. mais dafa défendre papa ji début à la fin uh-huh. du début à la fin dafa défendre Papa boo Djiné jël ay qualité am teg ko en avant yaa may dégg yow tamit xam naa la yow yaay ambassadeur gars yi ñu ngi naan Lirou Diane mooy ambassade Guédiawaye yow yaay ambassade Guédiawaye yow da ngay bañal toujours Guédiawaye toujours da ngay défendre Guédiawaye nag booy bu ñu waxtaan ci làmb papa mi nekkoon ba pat man gëj naa koo gis Moustapha mi mbapat sama kanam gëj naa koo gis parce que de un kooku dafa sewoon nii njool am réflexe am souplesse kii daa commencé pata kii may gis nii du ma ne daa daa daa am masse daa commencé pata mhm. yaa may dégg mhm. gis nga euh, mbay di foncé mii Mbagnick Fonce mii bu sumee koo taxaw musculature bu impec ngay gis macha allah sama rakk la ñoom ñëpp dama leen di seedeel bu sumee koo taxaw ci biir géew yaram bi dafa dagg ji kaw ba suuf dafa dagg ay Pape Sakho ya Pape Sakho numéro mi ngi nii dof bii ngay gis bu sumee koo taxaw ci géew dafa dagg kaw ba suuf mhm. yaa may dégg entraînement bu fen sa waay bàyyi nañu bàyyi yenn yi man nekkuma fi pour xas kenn man du ma du ma dugg géejawaay di xas boo Djinné xanaa dofewu ma noonu mais tamit du ma dugg géejawaay tamit di wax loo xam ne gëmuma ko Pape Sakho fu mu sumbee ko taxaw ci jéew boo ko xoolee kaw ba suuf dafa dagg Mbaye di Fonse numéro de kaw ba suuf dafa dagg ala numéro 2 ala numéro 1 sax ba muy bëri ak tuutaay bi mais bu sumbee dafa dagg kaw ba suuf mhm. est-ce qu'on est d'accord léegi nag ñun mënoo ñoo gëmloo ne diw mi ngi entraîné mi ngi entraîné fekk summee ko duñu gis benn du ci tànk yi du domino du dënn du du du du épaule du dara du dara masse la ñuy gis te masse boobu noonu mën ñoo gisee ne kii am na doole yaa ngi may dégg man personnellement dama jàpp ne Faa Boy Djiné entraînement bi dafa des man maa wax ok merci euh, euh, euh, Fouta. man dama jàpp ne Papa boo Djiné entraînement bi dafa des man loolu laa jàpp. te bari na. waaw bari na ñu jàpp loolu. man li ma wax. Mhm. dama jàpp ne entraînement bi dafa des. Mhm. te li ma wax nii bari na ñu ko wax yow nag xaw ma ba xam danga koy defender xaw ma ba xam da nga koy wax dëgg. Mhm. mais yow est ce que japp nga ni Fa bo jine liko ko war ci entraînement mi ngi koy tek yaramam est ce que gem nga ni mi ngi entraîner bu baakha baakha baax wa baax. waaw ku am combat di dem estat di ngi yeb lu dal sa xel xeyna mom lol mo dal xelam. waxo fi dara. wa yaa ngi da nga may déglu ba ma paré wa ñewal ñëwal ma suma don doon ngem wala dem estat waaw damay liggéey loo carrément lu dal sama xel la. suma waaw yokku mas damay yokku maas. sama maas sama mas xeyna mom lol mo dal xelam ci combat bi passé mais man bu nekkon man la ma taxé position bu

waaw mais tey ji bu fekkee man loo xam ne carrément man gënal na ma man noonu lay liggéey noonu noonu a préparé waatee bu amee combat lan nga jàpp ne moo koy xañ combat yi parce que euh, bu ñu ne Papa Boy Djiné ñu ne Bayre ji mu ngi fi bari na ay soppe lool lool lool lool lool buy bëree day génnee lu bari même bu bëree daanu daanu daanu waat buy génn day génnee supporters yu bëree bëree bëree bëree bëri deuxièmement Papa dafa waane dafa mën a fecc fecc moom bu feccee nga ne waaw yaa dégg showman la day show yaa ngi may dégg mais résultat final bi bu baree ci biir géew ci biir géew bu bëree ñàkk yow ban explication nga ci am. waaw xëy na tey jii ndogal yàlla suñu borom la rek. Ah, non non Seydina Seydina Seydina Seydina nit ki nit ki bu la leeroon da takk sa ngëm pour ñëw daanu dem ñibbi. da ngay porté ma da ngay da da da naan daam la dal bi da ngaa dara nga jéem a yàq làmb ji <laughs> mais papa mi jël ay millions fay ko si combat da <laughs> coono <laughs> takk ngeem pour dem esat moom bu ko ko leen day dem daanu ñibbi si kon kon du dem du si fere nga dem bëri ji ngir lan récupérer ses reliquats mais doo si def benn benn fere mais papa ko gis xam ne day fere si combat ay ticket jox ay supporter kon kooku moom gëm nañu moom bu demee esat du taxaw du taxaw ak adversaire am dégg naa boo ko fayee deux millions mu mu def ci 5 millions. papa combat bi passé xeyna na tey jii lu wara am la mu daanu mais tey jii man bu fekkoon ni man la at bi bu nekk du xaar Nandi Fall duma mu xaar Nandi Fall ci lenn. Nandi Fall ngay beurel de Nandi Fall bu Grand yof l'un des meilleurs de sa génération. ku gën a féete papa kon papa war naa xaar ëppul doole. ma waaw ku si dàqul bëre moom laa la séen naa dàqul bëre ki si nekk yaa xam ne nekk si yow. mais man bu fekkoon ne maa taxee position bu papa taxawee laa la wax man. at bi bu nekk du ma xaar Nandi Fall. 干啥？ Papa xëy na xëy na xëy na keroog action bu mu tànte tànte na ko daanu gars yi naan Papa tuune la ah, yooyu mais xëy na tuune amu fa hmm. xëy na ji yow kuy bëre yaay déet ci biir ci biir bëre hmm. mais Papa pied droit bu mu teg bëgg a daw laali plaqué gauche c'est impossible xam fa la waroon tek daa woon def changement pied tek pied gauche daw laali plaqué même buy ah, def c'est plaquage même même même sa waay bu bu buy yàq action bi bu yàq action bi boobaa Papa day rëpp jugaat Papa bu amorcé won plaqué ak placage ma ne la papa. waaw ak soo mu tànte ak soo bu mënee la. waaw bu amoo seen placage nga ni. ndax papa moom bu fekkoon ni tey jii action ba mu koy tànte. dafa teg pied gauche pied droite. waaw bëgg a daw plaqué gauche. loolu day day jafe. waaw booy plaqué nga bëgg a goos gauche da def changement pied teg sa pied gauche. waaw daw laali plaqué même action bu ñu koy yàq yow da rëpp jugaat. Mhm. mais munoo teg teg pied droite bëgg a plaqué gauche. mais nga ne bu la plaqué woon daw ak yow. bu fekkoon si digg géew bi la. waaw mu plaqué daw ak yow. waaw benn pas ñaari pas. waaw tey def demi flexion tey tii sa ngemb day def demi flexion. def demi flexion tuur la. waaw wala mu daw takk la wër la ndomba. waaw loolu bëreem la. waaw te loolu da kaa mënee loolu depuis mu boppam da ka bëree. yaram bii attan na ko. waaw xëy tey jii moom moo yaram bi attan na moom laa lay wax. di nga nit ñi dañuy jaawale di nga mën nga yok mass mais ngay atane sa yaram mais est ce que mom atane na yaram la ji lu nek ci mom man mënu mëna le atane nako wala atane ko mom mo xam mom li mu sentir ak li nga li nga wax ni souplesse mo koy def rapidité mo koy def vivacité mo koy def est ce que loolu lepp mi ngi fa wa mom la lay wax may la xam nga ji man mënu ma ne papa loolu nek dafa nek fa nek fa ndax tay ji mom mom li yek ci yaramam li yek ci yaramam mom moko xam mais tay ji man bu fekkone tay ji carrément mbeut mu may yebula mbër mu may yóbbu man mhm. nga war a bëreeg naan di faal mbéy di fasi bi su ma ko yóbboon mu war a bëreeg naan di faal bu ma dégloo ma wax ko du ma leen day daan de mais yàlla suñu mën na ko see mhm. boo mu munti jël ma analyser ko boo demee làmb bi mujj dama dama la xamal benn affaire dama la xamal ah. boo yëpp samay booy lañ xam man je m'en li ma sentir laay wax gis nga gis nga area bii nii ay booy ñoomee entraînement ñoo fi nekk mhm. ku andi mbaytin junior xam na ne dof la dafa ñeme entraînement Mbaye du foncé numéro 2000 dof la dafa ñeme entraînement Baye ma Ndiaye Baye ma Ndiaye mhm. malgré jëloon na volume tuuti mhm. gars yi ba ñuy waxee gis nga barki démb ba mu ko séenee stade mhm. graisse bi yëpp la lax mu ngi delluwaat fa mu nekkoon ku ko xamoon ba muy ndaw xam nga ne Baye ma Ndiaye dafa ñeme entraînement ñaa bu ndaw dafa ñeme entraînement. Mathia dafa ñeme entraînement Thiatou Daouda Fall dafa ñeme entraînement ainsi de suite mën naa la limal fii ba suba. mais Papa Boy Djiné xas bi ñu koy xasee booy géejawaay moom kese lañ ko fi xasee mooy lan ñemewul entraînement. loolu kay man du ko raay raayal moom kese laa fi gis géejawaay espoir géejawaay ñu ko fi xasee ne kii ñemewul entraînement. moom laa ne xëy si côté boobu noonu mën naa ne dafa def. dafa def erreur. Ah. erreur bi mooy. non xam nga bu defee erreur nag mais leneen ko def. waaw moom laa lay wax. xam nga lu tax ma nekk ci erreur bàyyi ko ci erreur. moom wax moo tax ma dafa def erreur xam nga erreur bi mooy lan man kese tey jii man kese mënu maa teg sama bopp coono fu ma ne damay arrêté. su ma sonnee damay bàyyi. divorcé mi mënut a teg boppam coono fu mu arrêté day bàyyi. coono fan nga koy tegoo ngay dem école. waaw gars bu nee cinq heures cinq heures na la fa fekk. nga wan leen ni mbir mi yaa yàlla ko gën a bëri. gars yi bu ñu doon bu ñu doon lu metti métti métti métti métti métti métti yow fexe nga continuer ko ndax yow boo xoolee tourné xool sa morom tourné waat xoolaat sa morom. waaw bàyyiwul yow doo bëgg a bàyyi da ngay continuer. lu lu tee moom Papa Boy Djiné mu dem jébal boppam Lac de Guiers numéro 2. man sama question réponse lamb ji fukki nit ñi ma laaj lamb ji ban mbër moo fi gën a ñeme entraînement ñu ne ma Lac de Guiers numéro 2 Lac de Guiers numéro 2 ni muy def ma ñaabu ndaw di ko buggal fee ci place ba ñaabu ndaw moro moro bu mu tee dala naan xale ma ma jàll noonu muy def macca ci place bi macca ku mu jàkkaarloo danaa de Guiers ci ci ci place ci ci ci tefes ga ku mu taxawal dana naan sa waay nga ne ko naam mu ne la xajal ma ma jàll léegi lan moo tax Paa Boy moom mënul dugg ci rang yooyu lan moo tax mënu dem jébal boppam Lac de Guiers numéro de Lac Lac tas ko tas ko juróom-ñaari paar entraîné ko lakk graisse bi def ko musculature bu impec nga xool bu boobaa bu duggee ci biir géew ba xam du wane doole ba xam du wane réflexe ba xam du wane euh, euh, vivacité. waaw boo bu nekkee wax nañ ko ci erreur la nekk. moom laa lay wax ma la. tey papa mom lu ko war moy gaay bu ne école 5h mom 4h demi na jaral mom mu jitu len bala gaay ñew mom na daw 30 minutes yi jema physique lak graisse bi wala bu gaay ñew mu continuer andat ak ñom ñu ba dundu lamb làmb top lamb du tay bala Gaye de ken daw ko njëkk école ñu nak bala Gaye de dañ daan sapu gi yaay bi ni jor ga dañ fa daan dajé di entraînement wër koor dañ fa daan daje di entraîné weeru koor kon tey ji mbëri mag yi nu débuté kon ñoom war na leen see fekk man xaw ma mbëru xaw ma yeneen zone yi seen mbër mais mbër mu dëkk diggante zone baxtaat bii nii man boo nekkee si lu nga war a nekk chaque damay toog appuyé boo si nekkul di ma noo amat daa dëgër wax wala leen wala daal damay taxaw dal sa kaw ne lii nga def waroo waru la ñoom ñi muy muy ala deux muy mbay divorce numéro deux muy mbaytin muy keneen ak keneen wax dëgg fa yàlla man ñi mbëri ma nekkal nii man dama leen tiitaroo di seen sagoo xam nga tax ñeme nañ entraînement te bëgg na lu ñuy def ñeme nañ ko te bëgg nañ te bëgg na lu ñuy def dañuy dajaloo di dem di bokk di contact muy bi ñu juuf muy keneen ak keneen mbay mbëri foncé mbëri foncé lamb ji lamb géejawaay lamb géejawaay instant bii may wax ak yow gunaas baxdaat yaa may dégg loo ma ci mën a wax lamb ji lamb géejawaay sooxe na moom instant nii sooxe na waaw japa dafa ñàkk jàppale moo tax da ngeen ñàkk jàppale lamb géejawaay japa mbëri ndaw yi waaw mbëri magi yi jàppale wuñu quoi mbëri ndaw yi mbëri mag yi jàppale wuñu leen te ñun bu ñu amee ñoom bu ñu amee combat dañuy sonn si ñoom ñun bu ñu amee combat mbëri mag yi duñ sonn si ñun loolu lan la pour lan la warul demee loolu warul demee loolu sa doom buy sonn si yow waaw da nga war a après da nga war a sonn si moom bu lay taxaw da nga ko war a da nga ko war mais bu ñu combat ñun jàmbur yi la jàppale sax mais pas ñun ñuy dëkk fi muy Balla Gaye muy Lac de Guiers Lac de Guiers sax si tane parce que muy yóbbu booy di entraîné muy guy gi muy Sa Thiès ak amul kenn ku ñu jàppale ñun ñun boo daan li ñu rafetlu mooy tamit jàppale ay champion ngi fi. pourtant nag pourtant Guédiawaye manqué wu wax. Baxdaad waaw waaw. ñoo fi ne. man boo ma génnee kan moo fi nekk champion boo génnee mbaytin kan moo fi nekk champion biir Diouf kan moo fi nekk champion Bamba kan moo fi nekk champion ala deux ñun suñuy mag moo ñu jàppale mbay di foncé dafa caam du ay ñoom njaga ñoom jib mboto ñoo ñu jàppale ay ñoom fuuta ñii ñoom ala ala ala seen ñoom jiri boodoo ay ñoom yuusu gars yi ñoo ñu jàppale gars yi fi ne nii ñoo ñu jàppale gars yi fi ne mais amul kenn ku ñuy jàppale te ñun ay champion lan may di bossé do da nga kaa mos gis muy adé si du ko def suma ko defé mu ñëw may gën koñ bi. barki Serigne Bamba lool nekul fii ba dal amul ragal amul ku télé amul ku ñemewul entraînement mais jappalé lan amul nañu waxante dëgg. jappalé mo dess mo dess mais dal bo len amé jappalé gëm nga ni kèn mënu len téye ci lamb. kenn mënu ñu téye ci lamb nekk nañ champion bu yagg non la démé ñu ngi gën a yaatal après. sa waay maa lay ziar. Gris waaw ñu ngi lay delloo siyaar bu baax. Gris Bordeaux. Gris Bordeaux. waaw Gris bu Colobane. bu Colobane. Gris bu Colobane. waaw Gris Gris yow foo toj yow yow foo toj. toj naa Sane Ndiarème. Sane man ñi toj yëpp xam naa leen de. yaa ngi samay photo sama combat ma 5 tonnes yaa ngi doon stade Ndiarème. yaa ngi samay photo. lu gannaaw ngay wax lii. waaw Sall Bantamba fekk nga fa ba taay lu dul benn lu ñëw. noonu la fa demee non dama lay kaañoo rek. waaw bilaay di fonce mi dafa wax lu am solo. mbay di fonce waaw numéro 2 mi dafa wax lu am solo. booy ay mbir kaamil lañ. bëgg nañ làmb. làmb bu doon garab bu ñuy jëmbat ba daat la meññee. làmb bu garab la bu ñuy jëmbat ba daat la meññee fii sax taxu sax mënu am na fi champion bu ne jaar na fi. yow xam nga lu ma lay ñoom diw ñoom bay defee ñoom jib mata ba ñu mbapat ba ci ñi bàyyi rek mënu nañ cee làmb kii Fouta mii Assane Bathie Seras Assane Bathie ñoom segg kon yaa kon yaa kon yaa ngi bëgg comprendre li mbote jibi mbote waaw yaa ngi bëgg comprendre li ma lay fii fii dafa nekk gox boo xamante ne nii liir bu ndaw sax bu jógee ñëpp jóg parce que benn xol la mais booy li seen cat mooy amuñu ku leen jàppale. jàppale bu moo des. Euh, parce que fii bëri na ay politiciens yu fi nekk ku mel ne ay Modou Gueye ay Béyda Ba. ñoom bu élection ñëwee dañuy soxla élection bu ñëwee dañuy soxla. dañuy soxla ay set dem campagne yuuxu def luñ neex def luñ saf bañ am ndam mais ñun ñu amee lu dul làmb di tiitaroo làmb bëgg a tekkati làmb ñoom dañoo war a jël seen doole def ko ci ñun jàppale ñu ndax boo nee benn da nga ne ñaar. te mbooloo mooy doole wàññi boo gis ci benn tàmbalee barki Seydina Mohamed billaay walaay nga booy ay ndaanaan ku la fa diri la booy kenn dàqu leen bëre kenn gënu leen gëm làmb heure bu ne dañuy dem géej une heure deux heures trois heures heure ko géej man li ma baaloo mooy découragé. da ngay entraîné buy bëgg a dee doo am combat. combat waaw waaw. mais boo ko amee katan boo ko amee te bëriwul da nga nekk agresseur. waaw jëlee fi jàmbur dugg ci mhm. ay booy mbéyum junior bi ngay wax nii ay photo ay kii nii ay ndaral ay Balla Gaye 3 boo fi nekk ay champion ay Bébé Taala mi mais amuñu ku ñu jàppale mais bu ñu amuñu ku ñu jàppale duñ duñ maam fukk duñ yóbbaale du tax ñu jaay suñu ngor dañuy xaar yàlla am yàlla yàlla ñàkk yàlla yàlla mais barki sëriñ dina ma booy ku leen jàppale gis mbër kaamil Balla Gaye 2 ba muy dëbb fii suñu kanam saako jot numéro 2 ba muy dëbb de suñu kanam la dëgg de 2000 ba bi bi sa peur la woon wërsëgam lay lekk si lamb rek anam daa ba Alioune Seye noonu Alioune Seye 2 ba muy toog suñu kanam ay mais amuñu jàppale amuñu kudd loolu am naan ko am kudd doo laq ñu amuñu kudd yow xam fekkee nga lépp xam nga demee barke rasulilah yàlla xam ne liggéey natt lépp am politiciens yi autorités yi jàppale booy ñu taxawu booy booy seen raq leen seen doom leen booy amuñu lu may ñoom booy ñu amee ndam indi ko Bagdad ñoom ñoo ko bokk ak booy barke Sëriñ Tuubaa Gunaas Bagdad benn bopp la Papa Boy Djiné nag moom li ma koy conseillé mooy xala la keroog bu ñuul ku xoyoot ñàkkoo dara ay entraîné naag entraîné wul yooyu yëpp du wax. entraîné wul mbéju kanam borom boppam borom moo koy fajal boppam. géej gi yaatu na amul buntu amul caabi. gis nga tout prêt. tout prêt tout prêt. xale man dama gëm ne xale. waaw damay gëm ne xale nga. man gëw ma ay ginnaaw ma dal gëw ma ay vitamine xam nga dama gëm. merci loolu rek xewar. merci waay mbir da ngay entraîné. merci waay kii non kii ndax. entraînement mooy vrai. yow giri merci. lamb entraîné la. giri merci waay merci. barke Seydina Mohamed. naturellement. sëriñ appareil appareil la. waaw ay mën ñaari waajur boo ko amee garaawul. lamb fit la ak sañ-sañ. ak doon dof. lamb ji boo doonul dof amoo sañ-sañ doo ci génne mbir da ngay am capable da ngay am sañ-sañ yaram ben la fo dóor day saf boy di wex wexlu fii wexuñu barki khadim al Mustafa ñu bu ñu amoon jàppale kon nga xam lépp deug la barki Sëriñ touba lamb ko mo koy def waaw waaw fa nga ko de. ba ñoo ñoo doon ay champion do ñu ay champion comme comme bay di fossé numéro 2 ñu war doon ay champion dañ ñaan champion yàlla na yàlla def jàmm te ñaanal booy ñu toog mu yàlla suñu borom defal leen jàmm booy yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla baax na gëm nga ni gëm nga bii gëm nga ni buñ leen jàppalee xale yi maanaam bay di foncé numéro 2 à la numéro 2 Moussa Faga ñoom min Baye Mandiaye ñoom min euh, euh, Pape Sakho gëm nga ni buñ leen tegee loxo ñoom Brise gëm nga ni la booy buñ leen jàppale ñu nekk ay ñoom bu leen neexee roi bi ñoo koy joxante seen na wax na. Ah. gëm nga loolu. su dee làmb rek làmb laa bu dee garab la ku ñu jëmbat nee naa la bax daat la ma la la maññee. da ngaa baax rek bax daat nga dëkk rek. booy yi amul ku ñu ba ci xale yu ndaw yi nga ji booy interview bi dañoo mën a bëree. Djiblage dañuy indi ay américain fii yow fi ñu tëgg mbabaram boobu yaa fi ay raw fi lañ ne ay mar la fi lañ ne. yow ngi Espagne sàq ngi noonu daw na. ko tëgg lamb fii la mu ñëwee bax daaj mhm. dañ naan bax daaj ay agresseur am bax ay bànneem loolu c'est pas vrai amul. fii ay man de xaw ma loolu bu dee fii am na de man xaw ma bu dee gunaas am na agresseur yëgu depuis dix ans quinze ans maa ngi fi fee gis agresseur. depuis plus de dix ans quinze ans maa ngi fi fee jaar nit ni ma grand taxawal yàlla xam na loolu. man tamit li ma xam moom laay seede bu dee am na agresseur de man dama bëgg autorités yi politiciens yi jàmbaar yi gawar yi doole samba ala ba ñuy def dem ci àll bi dimbale jàmbur ñu bàyyi ko jàppale seen rakk yi ñu dem di jàppale ñeneen ñu jàppale dem feneen jàppale seen booy waaye amul solo tamit parce que tamit politiciens bu jotee dañuy soxla booy dañuy soxla booy parce que dañ ko ba ci équipe nawetaan bii ñuy wax ne dëkkandoo dañ jàppale booy di gëstu booy booy lamb lañu am lamb lañu tiitaroo yaa ngi ku la nekkal si naaj ku la nekkal da ngay njëriñ loo fekkee mhm. nañ jàppale booy yi mhm. nañ jàppale booy yi booy yi bàyyi nañ seen lépp ndax làmb barki Seydina Mohamed xam nga nit bu bàyyi lépp jël benn affaire opté ko def ko muy laa laay fa mu ne en vie am nekk si ah hmm. jàppale ko da yàlla tax surtout nañ leen jàppale nañ leen jàppale nit buy raam mhm. ah bu doxee dina ànd ak yow jàmm si yow jàmm si yow euh, duukaay euh, euh, duukaay nii du kaani eh, kii eh, may ko wàccal wàccal wàcc si suuf si suuf si suuf wàccal waaw eh, Fouta booy jaakaar loolu ak caméra bi booy wala boog mais booy tubaab boo jinne gars yi nee nañu am na nañu wax ne na bàyyi bëre am na ñu wax na bàyyi bëre man waxuma ko de am na nañu wax ne na bàyyi bëre yow loo wax non d'accord ma loolu du bàyyi bëre pour lan ñuy bàyyi papa xale ne am na ñoo xam ne nee nañ dañ koo yërëm non yërëm amul. Hmm. non non. nee nañ la bàyyi bëre de. mais bàyyi pour lan nee nañu yoonam yoonam dafa dëgër combat yi defet yi dafa bari victoire yi bariwul hmm, quelque chose comme ça genre yooyu noonu. mais moom bu mu dara bëgg lii te yàlla suñu borom. nekkul tey jii moom la war a jox ndab lu mu si mën. waaw léegi du bàyyi dem uti leneen. non na si nekk. Hmm. bu mu découragé wu man loolu laa koy wax. Hmm. te bis bu ñëwatee si làmb takk ngemb war a bëre hmm. moom defete mi. noo ko jël fàtte ko te ko fee te xool lu nekk si kanamam. ok mais tànk mu ngi bëre waale noonu. na mel ni mësul bëre. na mel ni mësul bëre papa nee naa la ndaanaanu bërekat la woon woon. ndaanaan lu bëri kat la woon. papa xëy na tey jii situation yi mu nekk nga nga toog ak toog si defet moo doy waar da ngay suuraal di calcul lu bëree bëri mais Gris dafa wax lu am solo di nga baxtaat fii nii ay champion dañ fi war a génn. ay champion ñun fii dé ñun dërëtu baxtaat la ñuy défendre ñun baxtaat moo ñu ñor ku ñuy bëgg la ñu ñu dëkk baxtaat ku bañ ku dëkk baxtaat ñun bëgguñu la ñun baxtaat rek moo ñu ñor. ku am leneen teel teel. mën a jàpp doomu Baxdaad ñëwal nga bokk ak ñun. mais bu ñu jéem a tëj jàppale ñu bàyyi la nga dem seeti leneen. waaye yow Fouta yow Papa Boy Djiné dafa conseillé na bàyyi bëri. non non non Papa bul découragé wu ma loolu laa bul déglu waxu nit. nekk si li nga war a nekk. du nit ñi. bis muy neex ñëpp képp lu nit doon wax lu ñaaw dina waxal lu lu rafet. waaw léegi doo ko conseillé mu mu mu changé staff mu dàq staffam ñu staffam ñu ànd ak moom mu dàq leen ñoom ñëpp maanaam mu dàq dund. dund lay njëkk a dàq dund sorcier boobu noonu moom lay njëkk a dàq petit petit jéey moo yàqoon suñu làmb ja fëre Iba Mar moo yàqoon làmb ja ay booy yooyu ay ñoom baro staff bi mu mu mu fobeere leen ñoom ñëpp ne uti beneen staff. staff moo tax mu daan. man maay laaj yaay tontu waaw moo tax ma ma wax la ma ne la dama laa laaj ba xam du dàq staff bi mu mu raxas lépp dàq dundu daq njaga doole daq baro dàq daq jee yi dàq ñëpp everybody wut beneen staff bu bees bu dàqee ñooñu bu dàqee ñooñu waaw defet di gën a yokk nag léegi après day dàqaat ñooñu ma ci xam booy mu waxal rek. waaw man tey jii li ma gënal man li ma gënal mooy. ñi nga xam ne ñoom la nekkal ba heure bii. mais hmm. na leen téye. na leen gën a téye. na leen gën a téye ndax ba dara dul dara la. mu leen gën a téye ba dara du dara avant muy dugg si làmb nekkal ñoom mu leen di jàppale non ko na continuer ñooñu man loolu laa koy na continuer gën leen a téye. gën leena te téye bu dee aayu ñu na bu dee aayu ñu nag. non aayal ñàkk aay ay gàllaaj yi gàllaaj deuxième la defar xam day aar sa yaram. dund de moom sorcier la dund képp kuy doomu Guédiawaye boo amee combat si jàpp. mais ñun tey jii c'est la vie y a pas la mort kooku du ñu demee ba bëgg làmb baax baax lu comme ça mais c'est daal dafa loo xam ne tey jii dama see waxaguloon ñun bu ñu demee ba bëgg làmb yàlla ak ji moo tax du mais tojul fenn de tojul fenn yow yow yaa star bi yow numéro 2 bi yow yaa star bi mais kii moom da nga kaa yóbbaale rek wax dëgg yàlla dan doon takk ngeen war a dem hmm. mu ne nii moom waaw nga war a bëri ji a bëri ji mu bëri làmb ji avant ngay booy xam na si dara mu wax la fan ngay jaar ak nan ngay bëree ba daan di nga nit nit nit ku si léetool taxaw taxaw laa moom mu jox la ay secret waaw nga léetoog mbër waaw mu toog si ay tànk nga toog si ay